ak euh, Seydi Seydi Gassama Amnesty International euh, monsieur Seydi ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi leen di fay. waaw nan nga gisee tey marche bi tey ak mobilisation bi nga xam ne tey suba lañ ko autorisé en tant que. je crois que mobilisation bi euh, vraiment am na solo Sénégalais yi ñëw nañu en masse toute obédience politique nag toute obédience sociale ñëpp ñëw nañu pour demander à ce que ñu bàyyi. Euh, évidemment les personnes qui sont détenues parce que ñu ngi doon joxe seen opinion ah opinion bi nag mun il faut que les gens du pouvoir comprennent que démocratie nest dafa ànd ak expression ñagas doo nekk mënoo am say opposant ñu lay tëgg ñu lay ñu lay ñu lay di wax lu baax ci yow di lay tàccu non non le rôle de l'opposition c'est de critiquer ci biir critique bi nag mun na amee kaddu ñagas waaye loolu tax nga jàpp ni tëj ko ci biir kaso kon ñu ngi naan non seulement ñu bàyyi Aliou Sané waaye képp comme dañu téye parce que da nga benn post Facebook da nga kaso dañ la war a bàyyi parce que loolu mooy n'est-ce pas enseignants yu ñu téewoon te ñu bàyyi leen te nee nañ jugement sax amul dañ leen bàyyi nii rek. waaw ñoo dañ leen war a bàyyi soxla ci biir classe yi dañu war a bàyyi enseignants yi dañu war a bàyyi dañu war a bàyyi dañu war a béy ñëpp dëkk bi ñu jubóowaat suñu biir ñu préparer élection parce que loolu mooy euh, tradition Sénégal élection inclusive Senghor musul tere kenn bokk ci élection ab ab Abdou Diouf musul tere kenn ci bokk ci élection ak lu lu lu garaaw li xewoon ci biir réew mi ñu rey benn vice président conseil constitutionnel rey ay policier dagat leen waaye Senghor musul tere kenn bokk ci élection Abdoulaye Wade noonu kon tradition boobu la ñu war a continuer élection yi inclusive Sénégal yi tànn ki ñu bëgg n'est-ce pas mu toog jiite réew mi ki nga xam ne moom moom la wuute mu nekk en pe parce que loolu mooy Sénégal. itinéraire bi ngeen jël yéen a ko taamu wala dañ leen ko imposé. ah police moo ñu ko proposé. ñu nangu ko nag parce que je crois que xëccoo bi jaru ko quoi. waaw ñun duñu ay parti politique moo tax xëccoo ñu ak police bi ñu ne itinéraire bi ñu ne nañ ko jël rek. waaw même su dee juróomi nit ñoo ñëwoon sax ñun nañu bëgg parce que ñu si message moo am importance du ay nombre de personnes. jërëjëf merci beaucoup.